mbaaco jai, amina poté amina poté mbaaco jai, mbaaco jai tasna, na jai tasna, tas tasna, ba tasna na ngeen ko yene won yene ay domeram dekk bo xamanteni bo fay dundu bo amé lu bax duñ ko fessel sa lu bon la xaar pour fessel ko te sey nak dafa dagan fase dagan ñaar yu mënta and dañuy ko ku nek nek ci jamm lan moy sen problème motax man dundu Sénégal neexuma billahi damay toog ba mu yàgg lan motax man man juddo Sénégal ak ni ma bu dem doon tey man Europe lay juddoo fi duñ top kenn ba mu sës da ngay gis ku yor xol panu dayam galu dayam sax lay yor galu day waxuma la pande de gal moy pan bu mak xale yi xamuñu luy gal da ngay yor sa geranggalu pou dem ci kopp jamur jàmbur di ko lijeenti mbaaco jaay mi ngeen top di ko ngawti ngawte yeen ay dem ngeen seyna tasna legui lan problème be yeen dafa melni yeen am mbokk mu tass